رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن احتفى آثارهم إلا يوم الدين وبعد السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku jullit ñu ngi dellu di yëkkati yëkkatiwaat sunu kaddu jiital ci nuyoo ak ziyaara jiital ci imaam yi yàlla jiital sunu kanam te ko ci loxo imaam alxaaji Malik Ñang ak mboolem imaam yu topp ci ginnaawam yépp ñaan yàlla nangu leen seen jaamu yàlla ak lépp lu ñu jiite yàlla dàqal leen seytaane ak bakken yàlla bu ñu gis seen bopp ñu yàlla bu ñu gis suñu bopp nuyu mag ñi ziyaar leen ñaan leen yàlla yàlla na yàlla dool leen yàggal suñu kanam ñu wéree di yàlla na leen yàlla may wér te delloowaat leen ci mbooloo mi jiital ci Baay Alxaaji Mbay Moroon ak mboolem mag ñi ci jumaa ji yépp fa tabaarakallaahu di dellu di ziyaarawaat ak di ndokkeel jullit yépp ci weer wu tedd wii nga xam ni tabaarakallaahu weer bu bari yiw la ñeel bépp jullit ñi ngi ñaan yàlla yàlla bu mu nekk sunu mujjanteelu koor yàlla na koor dellu ci ay at yu bari te bu ñëwee fekk ñu fi ci barkeent bi sallallahu alayhi wa te li ñu ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu suñuy bàkkaar yépp yàlla jéggal ñu ko ak suñuy tabaarakallahu ak yi dox ci suñuy diggante yàlla nañu yàlla boole baal yépp ci barkeent sallallahu alayhi wa sallam yent bi sallallahu alayhi wa daan fàttali jullit yi bu ñu demee ba koor gi toll fii لنو تود زكاة الفطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر سنة واجبة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنصى خر أو عبد من المسلمين muslimin صلى الله عليه وسلم نن زكاة الفطر سنة واجب fitri أجن صح la ndax yent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko faratal ci bépp julit mo xam mag nga wala ndaw nga gor nga wala jigen moo xam jamono yi jaam bi am dañ la jàpp jaam wala aw xurrin gor nga mu ni zakatul fitri nag suñu koy génnee dañu koy génnee ca la dëkk ba di dunde maanaam dëkk ba nga nekk li gën a not ca la ñuy dunde loolee lañuy génnee génne zakatul fitri am yenn ci boroom xam-xam yi sax yu yi li gën a not ci li nga doon dunde ci weeru koor wi loolu ngay génne zakatul fitri waaye li gën a not ci suñu dëkk yi daanaka mooy ceeb walla dugub fa tabaarakallaahu ci jamonoy mag ña ba tey ci loolu lañu koy lañu koy génne بتی شاہجمہ امیر باری مکات ببو کرگی میرنے ٹیسو کو مانے گین کو سخن گیرنے کو آئنگا بتم باٹی کنگا خامد کو کرگی اور گیرن بھائی خالیلام dafa gëné adina ci waxtu wi nga xamné ne weer wi feeñ na daf ko ko wara gënël kon képp ko xamné ya ya yaa yor responsabilité am ci dundal ko yow ya ko wara gënël zakatul fitri bu féké nak sa dom jo xamné mom amna moyen yu mu mëna gënëlé bopam fa zalika na gënël bopam su féké yow bay bi amo moyen mom mu bën la gënël فذلك خير موميت نلاكو генيل ني زكاه الفطر يرنتي صلى الله عليه وسلم دان نوا صحابه نلن صوبنا ني генيكو ويستعب احراجها اذا تلعت الفجر من يوم الفطر manam sopp nañu genné jamono yi nga xam ni fajaru bés bi nga xam ni ci lañuy ñuy wori ma ngay fenk su boobaa ci lañ koy génne am ñu yaatal ba tey ni mën nañu ko génne jamono bu ñu waxee ni waxtu feeñ na ci marax googu jëm tabaarakallaahu la des ca guddi ga mën nga ko génne waaye daal da koy génne la njëkk ngay dem ca julleekaay ba nga jox ko ñi nga xam ni ñoom la la ko yàlla joxloo ci innama sadaqaatu wal fuqaraau wal masakin wal aamilin ila axiri aya yàlla tànn juróom-ñetti nit ñoo xam ni ñoom lañuy jox zakatul fitri bu fekkente ni ñooñu ump nañu la xamoo leen nga dem ci imaam ba nga xam ni moo lay jiite fa tabaarakallahu nga jox ko wala su fekkee dëkk nga ak boroom xam-xam boo xam ni yëg nga ni moo la gën a ràññee ñooñu te moom du miskin wala du faqir wala bokkul ci ñooñu nga jox ko su fekkee nag imam bi ci ñooñu la bokk moom am na sañ-sañu mu jëfandikoo ko waaye su fekkee tamit imam bi bokkul ci ñooñu moom na ko séddale ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko moom fa tabaraka allahu ñu ni zakatul fitri su fekkente ni nag génnee woo ko la njëkk ngay dem ci jullikaay ba nga dem julli ba ñëw génne ko su boobaa kenn dootu ko tuddee te zakatul fitri dañu koy jàppe rek comme ku jël sa xaalis wala sa alal nga saraxe ko ndax yenent bi sallallahu alayhi wa wax na ni zakatul fitri dafay sellal lépp loo xam ni xëy na ja doomu aadama matul ci biir koor gi bakkenam wala bànneexam mane na ko ci koor gi xëy na sax lu muy wax la te du ko yëg